أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل سهر رمضان على سائر السحور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات والتجارة التي لن تبورا والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ixwata al iman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk jullit yi noo ngi ànd ak yéen ci sunu téere borom bi tabaraka wa taala noo ngi woon ci suratul maida démb waroon jël ñetti aaya yàlla dogal ñu jël benn bi iznillahi tabaraka wa taala kon ñaari desoon muy 36 37 ci suratul maida moom la ni mottali tey mbokki jullit yi ñaari aaya yi démb am na luñ ci jotoon junju ci min hidayatil ayat aaya yi luñ ciy jëre aaya yuñ mën a jàng danañ gis ne aaya yi am na luñ ciy jële looloo tax yenn saa yi ci dars yi balaa ñuy jël yax bi ñu jël li ñuy jëlee ci aaya yi ba pare pour nu xam ne aaya yi lii moo tax mu jóg ñaari aaya yi nekk sunu kanam liñ ciy jëlee ci ay njàngin ak ay ndigal yu war a jóge ci sunu boroom mooy laa fidiya yawma alqiyaama wala shafaa tanfa alkaafir fa yaxruju biha min annaar li démb waxoon nan ko mooy jotu amul yowmal qiyaam jotu ràmm amul yowmal qiyaam ci ab yéeféer képp ku deewe kéeféer deewe weddi yàlla yow na nga yëg ne yowmal qiyaam jotu amu fa na nga yëg ne yowmal qiyaam kenn mënulaa ràmm loolu nag bu ko nit ñi xamee kon danañ bàyyi xel ne jaamu yàlla rek mooy dëgg képp ku dee ci weddi yàlla amul kenn ku mën a taxaw ëllëg ci kanam yàlla ba musal la amul góor ak jigéen mag ak ndaw a ci yem bokk ak yonent ak bokk ak waliyoog bokk ak sëriñ ak bokk ak sàmba ak dembaa ci yem te yooyu borom bi bi mu nu koy wax dafa joxe misaal yu leer naññ naññ naññ ci yonent ya ndax yonent yi ñooy référence yi yonent yi ñoom ñooy modèle yi yonent yi ñooy royuwaay yonent yi ñoo gën ci nit ñi su yàlla jàppee bàyyi yonent yi dugal leen safara lenn ci ay yonent jàpp lenn ci ay soxna yonent dugal safara jàpp lenn ci ay doomi yonent dugal safara waaye kon waxi sëriñ waxi noppi waxi wali yu waxi noppi waxi sàmba waxi noppi waxi demba waxi noppi ñooñ ñoo fi gën a màgg ñooñ ñoo fi gën a rëy te ñooñu la yàlla jàpp seeni bàyyi ñenn ñi tàbbal safara bàyyi ibrahima ana mu mbokk yi ma nga safara ana jabari nuux ana jabari luut ana doomi nuux ana qaaruuna mbokki muusa ma loolu yëpp daa sori ana abu taalib bàyyi yonent bi ma nga safara ana abu lahab bàyyi taxamba jàng leen alxuraan tabbat yada abi lahabin wa tabb ma agna anhu maaluhu wa ma kasab lu ci tegu dégguma li ci tegu de sees laa naar lu muy tekki ci wolof yàlla nee na danaa ko suub ci biir safara wala ñaari yonent yee moo waxoon sànq yàlla moo wax moo wax seeni soxnaa nga safara daraba allahu masalan lillazina imraata nuuhin wa imraata kaanata taxta abdayni min ibadina saalihayni fa xaanataahuma allahu akbar yàlla nee na xoolal ñaar ñooñu li ñuy baax baax fa lam yugniya anhuma min allahi shay ñoom ñaar seen baax mënut a jëriñ seeni soxna ah, kon ku jàpp ne man dama ànd ak ku baax lu ma neex def fu ma neex dugg bu ma neexee bañ a jaamu yàlla su yàlla diglee ma sànni ko fële c'est parce que damaa bokk ci mbooloo benn nit ku baax wala damaa bokk ci kër ku baax wala damaa bokk ci tarixa nit ku baax billaahi wallahi boo dee safara nga jëm kooku mënul la dërëm ay yonent laa leen wax ne ndax am na ku gën a màgg yonent yi yàlla jàppe ay jabaru yonent tabbal safara ne yonent yooyu li ñuy baax baax mënuñu musal seeni sa soxna su fekkoon ne yonent yooyu mën nañ dara ñu musal seeni soxna keroog ba yàlla jàppee doomu nuux di ko alak nuux xam ngeen nuux sayxul mursalin nuux mooy deuxième aadama ci kaw suuf nuux mooy deuxième aadama ñaari aadama moo am nuux mooy deuxième bi la moo tax ñu tuddee nuux deuxième aadama mooy ginnaaw tuufaan bi xam ngeen yàlla dafa alagoon tuufaan ñu judd ñëpp nuux ci njabootu nuux lan bokk keroog ba yàlla ne nuux defaral gaal gi nga jël ñi la gëm nga dugal leen nga jël xeet yi nga dugal ñooñu nekkoon ca gaal ga ñoo juraat adduna bi ñooñu nekkoon ca gaal ga nga xam ne feesuñu gaal gi benn kër lañu woon te njabootu nuux lañu woon ñooñu ñoo juraat adduna bi nu nekk moo tax ñu tuddee nuux deuxième aadama waaw xoolal nuux grade bi mu takk ulul azmi min ar-rusul alquran yàlla ñaar fukki yonent ak juróom lan nu tuddal alquran yonent yi seen lim cent vingt quatre mille lañ cent vingt quatre mille yi yàlla wax ñu ñenn ñi seen tur ci alquran muy vingt cinq ndax ñooñu ñoo ëpp ñële grade vingt cinq yooyu yàlla tànnaat ci cinq muy ulul azmi muy nuux Muusa ku ci tagu nuux Ibrahim Muusa Isa Muhammad juróom ñi juróom ñi yàlla génne kenn muy Muhammad ñoom juróom ñi ku nekk am nga ku la nekkal safara te munoo ci moom tus waaw kon loolu buñ ko gisee lan la nu war a jur mooy nu jaamu yàlla bàyyi fo bàyyi caaxaan bàyyi laye ñi tëdd fii ak ñun sunu mbooloo mi ak diw ku ko gis dugg àjjana ak yooyu ay caaxaan la laa wax ay fola ku bëgg a dugg aljanna da ngay jaamu yàlla musu leen gis kenn ku fo ba yàlla ne ko coppet dugal aljanna amul fenn yàlla lim digle mooy jaamu nuux moomu keroog ba mu defaree gaal ga ba jël rab yi dugal ci suuf ñetti étage la def gaal gi nit ñi ci kaw rabu àll yi naaw ci kaw mu def rabu àll yi borom ñeenti tànk yi ci digg bi mu def nit ñi ci suuf bi muy dugg di waaj a tëj bunt bi mu seen doom ji doomam bu góor mu seen doom ji fële doom ji di yëg ci montagne yi mu taxaw ndeysaan njureel jàpp ko mu taxaw mu ne ko yaa bunayya irkab maana eh sama doom waaye waaye ñëwal war gaal gi ànd ak nun lan la doom ji tont saawi ila jabalin yaasimuni min al ma danaa dem ci montagne bu nga gudd gën a gudd ci montagne yi montagne bee ngay gis su ma fa yéegee montagne bi dana ma musal ci ndox mi papa ji ne ko tey kenn mënta mucc ci li yàlla di def kenn mënta mucc tey laa aasima al yawma min amrillah tey kenn mënta mucc ñëwal mu lànk fi ñuy wax ñoom ñaar rek yàlla mu ne wa xaala baynahuma mawj ngandim vague la yàlla yabal mu dox seen diggante ñoom ñaar vague bi puus gaal gi gaal gi départ xale bi daw yëg ci montagne bi di yéeg xeer wi dem nu nekk ci biir gaal gi ci bën bëni gaal gi muy seen doom ji asamaan wàcce ndox suuf di wàcce ndox allahu akbar yàlla bari kàttan loolu ma leen waxoon de mu ne tukulóor yi nee nañ allah su xulaaka jola yàlla buñ ko ragalul rek da koo neex su nit ñi meree nii rek dafa neex yàlla waaye yàlla bu ko neexee ci 30 ci seconde ñun ñëpp ñu normal cop jub xooj ñu ñëpp nii waaye nag comme daf ñu may xel defal ñu ay jumtukaay dégg gis mu bàyyi ñu ak sunu liberté ñu tànnal sunu bopp yoon wu nu war a jaar nu ci bën bëni gaal gi muy seen doom ji yéeg muy seen ndox mi yéeg doom ji yéeg ndox mi yéeg gaal gi daw ba doom ji yéeg ba yegg ci sommet ci mon ci xeer bi fa mu yam kooku day taxaw ndox mi yéeg rek nu intervenir ndeysaan ne ay sama borom inna ibni min ahli ay yàlla sama doom ji sama mbokk la ci sama doom la sama njaboot la ci man la bokk lu mu bëgg même bu dee doom ju bon sax bàyyi ak ndey yenn saa yi duñ ko bañ même bu bonee xoolal nuux di intervenir laa la wax digganteem doomam ak yàlla yàlla xamul ku bon xam nga yàlla kan ngay intervenir mu déglu la ku baax waaye ku bon ba dan nañ jàng alxuraan li nuy wax ni li tax Sénégal am problème mooy alxuraan lan bàyyi kon suñ jàngoon alxuraan lii ñu nekkee caaxaan yu bari duñ ci dugg caaxaan yi ñuy dégg fii farak farak fii karak farak yooyu yëpp ñàkk jàng alxuraan li ñu leen nettali xissa la mu ngi ci alxuraan ñun ñëpp ñu ngi koy gis di ci teg bët waaye comme faale wuñ téere bi moo tax duñ gindeeku xale bi yéeg ba yegg dernière fi mu yem ca montagne ba ndox mi di yéeg nu xam na fu mu jóg mu ne na xaaral ma dem ci yàlla wax ak moom yow sama boroom doom ji de sama dooma yàlla ne ko du sa doom innahu laysa min ahlik ma ne bokkul ci sa famille laa wax innahu amalun gayru sa eh kii sax du jëf ju baax du doom ju baax rek mu ndox mi yéeg yëkkati doom ji dóor ci suuf mu lab daal di dee dem safara xam nga fa nuux mujj léegi nuux nekkatul doomam lay xalaat li mu ne yàlla doom ji sama dooma loolu lay jéggalu yàlla léegi waaw mu ne ay sama borom jéggal ma kon su yàlla labalee doomu nu laba rey jabaram dugal safara dobari luut bàyyi ibrahim bàyyi taxu muhammad ah waaw te ñooñu ndax sénégal am na ku gën a baax ñooñu kenn ñooñu ma tudd léegi seen tur ndax sénégal am nañ ku gën a baax ñooñu du ngeen ma tontu ah waaw kon nag su fekkente ne yàlla moom xool gis nga yàlla xoolul foo bokk xam nga lu mu xool li nga def Bilal fan la bokk africain éthiopie nekkoon jaam ah Abu Lahab fan la bokk Quraysh xeetu yonent ana Abu Lahab ma nga safara ana Bilal nga aljanna ndax moom dugg na àjjana avant muy dee Bilal dugg na àjjana avant muy dee yonent bi dem na aljanna dégg tànk Bilal di yëngu di kurus kurus yi di kurus kurus kurus kurus yonent bi ne Jibril waaw lu yëngu fii mu ne ko tànki Bilaal moo fi yëngu waaw xoolal walla africain ah éthiopien jaam mais terewul jaamu na yàlla ba martaba mu dugg àjjana te deewul kee mbokk yonent bi la deret Quraysh loolu ñu naan yax bu rëy yàlla bu ay yax yu rëy ak yax bu rëy fii ay yox yu rëy la ñuy topp ak ay deret ak ay sant ak wallahi yooyu ci yàlla amul valeur la fadlun li arabi ala ajam illa bi taqwa inna akramakum inda allahi atqaakum foofu mooy nattuwaay bi gis nga taqwa lu tax ñuy woor yàlla moom la def nattukaay inna akramakum inda allah atqaakum kon ëllëg yowmal xiyaam jotu amul jotu jotu jotu loolu ñu naan fidaaw amul àllaaxira ku bëgg fidaaw da ngay fidaaw léegi sa bopp balaa ngay dee fidaaw mooy jotu sa bopp ci safara léeg nga gis nit dee ñu ne nañ ko fidaawul gaa ñi daal di buub ay kurus lim ko ay lim hmm? ne def leen nangam ak nangam nangam ñu fidaawul ko lii buñ ko defalee nit day dugg aljanna loolu wóorul de xam nga lu wóor nga fidaawul sa bopp te mooy nga jaamu yàlla waaw loolu mooy nga defal sa bopp li nga war a def waaye di toog di xaar ñeneen di la ko defal loolu amul ëllëg yowmal xiyaam bu dee ab yéeféer nga yàlla du ko nangu wala safaa ràmm amul ëllëg lu dul ku yàlla jox ndigal waaw ëllëg yowmal xiyaam am na nuy ràmm sayyiduna muhammad dana ràmm saxaaba yi danañ ràmm nit ñu baax ñi danañ ràmm waaye ñan la ñuy ràmm mooy ñu baax ñi ñu baax ñi dese ñi waaye ñi bon ñi nga xam ne xamuñu woon yàlla ay caaxaankat lan woon fo xam nga bark vendredi damaa xutba jumaa fii ñu ne man damaa tàng man leen télé yi ak théâtre kat yi dañ leen yónni pour ñu détruire l'islam ñu bëri weddi ma ne ma bu ma génnee ñu ne defal attention nangam nangam waaw naa leen tegal léegi léegi saa neex di attaqué yàlla moo ngi nii déglu leen waxam yi ci micro bi laa leen koy tegal ngeen déglu saa neex lu mu wax yàlla dégg nga santal yàlla mu ne du ma ko sant xaaral ma delloo ko santal yàlla mu ne du ma ko sant lan la ma defal ba ma koy sant yàlla ku jëkku mat a waxal la déglu leen ko seen bopp moo ngi nii ah am nga ko yow ah yow am nga ko jërëjëf dégg nga na yàlla yóbbu sama ay mu ne na ko indi bu mu ko yóbbu dégg nga kii day woote moo tax mu dagg tu dégg ngeen yu garaaw la wax ci vidéo bi ne nee na yàlla ku jara waxal la dañoo war a wax ak yàlla dégg nga yàlla na yóbbu saa yi mu ne bu mu ko yóbbu na ko indi julli takusaan mu ne julli woon naa tisbaar ak suba dootuma julliwaat doy na na yàlla jël loolu doy na bu ko jëlul moo xam waaw mu ne yàlla tey man ak yow la foog ma wax la dëgg ah mu ngi ni déglu la te après nga avayé ko gars yi ñu déglu di yaakaar nit ñi dañuy nekk fi rek di wax di sab di ñun waxuñu li ñu gis ci dëkk bi lañ wax waaw mu ngoog après ngeen dem mu ngi youtube mu ngi fu nekk ci biir portable yi ci démb ci guddi lañ ma ko envoyé kon nanu xam ne dëkk bii dafa am fu ñu jëm de waaw dafa am fu ñu ko dafa am fu ñu jëm dafa am fu ñu jëmee dafa leer nañ buñ ko gëmee buñ ko gëmut waaw dégg ngeen yàlla lay wax dégg image baa ngi ngeen gis lu dee ngeen son bi waaw kon nag looloo ci gën a tuuti ngeen xam ne kon ñëwuñu fi rek toog di wax lu nu neex waaw lii ngeen di gis waxoon naa leen keroog vendredi man leen ay mbir la yoo xam ne petit à petit ndànk-ndànk la ñuy def ndànk-ndànk bu ñu attaqué yonent bi soo ñu attaqué alxuraan après ñu attaqué yàlla ndànk-ndànk après xoolal gone yu ndaw yi bu ñu seetaanee lii télé après lu ñuy def dañ jàpp ne yàlla moom ku xëy rek joxoñ ko baaram waaw dootuñu am benn toogal ko jigéen dootuñu am benn benn valeur waaw loolu quoi da ngeen da ngeen di fekk gars yi lu ñu gëm ngeen koy jam di ci wax wax yu su ko defee seen pas-pas yi di wàññeeku loolu mooy lii pourtant lii fan la télé la de ban heure la heure ndogu ñëpp ci ñun fii seetaan nañ ko parce que heure ndogu yi la mi ma doon wax keroog heure ndogu yi wala nit ñi toog ñaan ndax koor la yonent bi nee na booy ñaan boo ñaanee ñu may la wala gars yi toog seetaan heure ñaan déedéet di toog di seetaan tray télé di xas yàlla di xas yonent bi di diingat islam ñuy ree rek ndeysaan ñun amuñu lu dul di ree rek di ree rek kii wax ji mu wax sa kilifa sax ndax di nga wax ak moom nii waxuma laa ak yàlla sunu borom allahu akbar billa tey nag da ngeen yaakaar ne lii mu def nii wala lii mu wax moom kese la engagé non ñun ñëpp gis nga tey yàlla su meroon su ko meree topp ko ba mbugal mi di wàcc Sénégal yaakaar na ci moom kese lay wàcc ñun ñëpp daf nuy concerné daf nuy laal moom mi mbugal mi ñëpp lay laal te lii tey jii Macky Sall dafa am benn imam bu xutba ci moom ñu tëj ko un an lu Macky wax dafa tuuti dañ ko waroon tëj lu bëri kon ki wax lii yàlla moom lan lañ ko war a tëj kii est-ce que kii tey procureur waru ko woon woo est-ce que télé bi mu ko def waruñu ko tëj yàlla yow mii laa yow ku war a ku ñu ku ñu war a wax naan nii nag ci kaw eh su ngeen paree kii ne leen envoyé image yéen ñëpp bu kenn ñibbi te amoo image bi ndax dañu bëgg affaire bi leer ngeen wax ne waxantuwuñu da nga ko def ci ordinateur mu ngand nga teg ko fii tableau bi ñëpp si tànk ko mbokk yi waaw mu ngoog kon mbir yaa ngi noonu léegi nag ñii dañuy def yi ëllëg boo waxee ñu ne ñun am nañ ku ñu romb ku ñu romb waaw ndax yow ma Sénégal moom dañoo jàpp ne am na ñoo xam ne ñoom dem nañ ba pare ñu ngi foofu toog lijjanti nañ dossiers yi bu waa Sénégal nee tëll rek dañ naan waaw yàlla gars yi ñu ne ñu ne ana ñu ñu ne ñu ngi ñu ne nañ raa ñoom porte ba la ñuy duggee loolu lañ jàpp Sénégal benn benn benn waay dafa laaj benn kilifa diine ne ko man daal damaa jaaxle yéen kilifa diine yi nit ñi buñ ñëwee ci yéen duñ leen wax mu mbiru alaxira mbiru àdduna rek mu ne alaxira rek la dañ ko ba pare moo tax mbiru àdduna bi rek la ñuy ñu réglé ko moo des mais fële terminé léegi nag looloo tax nit ñi fii du jaamu yàlla ndax soo jàppee ne man alaxira fa ma jëm régleel nañ ma ko ba pare su julli jotee dootoo julli su woor jotee doo woor su def lu baax jotee doo ko def parce que ñooñu kilifa yi ñoo wax loolu loolu ñun ñëpp dégg nañ ko ci rajo wala télé keroog bi ko waajire ne ko ñun dañoo jaaxle fii nit ñi dañuy daw di ñëw mais ñun duñu nit ñi duñu wax mbirum alaxira mu ne c'est parce que alaxira réglé nañ ko ba pare adduna bi des moom lañ ñuy wax si ñu ñu koy réglé ndeysaan alaxira kon Sénégal yéen waa Sénégal kon seen alaxira leer na yéen aljana ngeen jëm firdawsi al aala allahu akbar waaw yàlla na nekk dëgg waaye amin yàlla bu mu nekk ay nax kon mu ne la fidiya yawm al qiyama wala shafaa tanfaul kaafir képp ku wedd yàlla ramm mënalu la dara jot mënalu la dara kenn mënta fexe ba nga génn biir safara biir safara bu la fa yàlla dugalee fekk da nga ko doon mooy nekk yéeféer pare nga zaar zaar waa ji nii pare nga kii de bu tuubul xawma lan la de waxuma sax moom waaye ñun ñi dégg kàddoom gi mu wax lii yàlla ñun bu ñu sikki sàkkaare ci saa neex ne mu dafa murtat yéeféer la ñun ñi ñëpp ay yéeféer lañ lan la yàlla waxoon gars yi wala qad qaalu kalimatal kufri wa kafaru baada imanihim ku ci sikki sàkka rek yow sax bu yeboo léegi-léegi fi nga toog nga dem dog naan ndox ku sikki sàkka ne waa ji jullit la mu nga am na baat yoo xam ne boo ko waxee rek génn nga ci islam terminé pare nga mooy baat yi muy wax lii lii muy wax ni yàlla mais gars yi bañ ko defee ñu ne leen dem leen ngeen xeexi ñu ne naaj bi dafa tàng bon ngeen nekk fii di am ku dégg wax ya daw di ko waxi yonent ba fekk alxuraan wàcc yàlla mu ne ñooñu weddi nañu bi gaa yi yegsee yàlla yeneen yàlla ñu yëg ni yàlla wàcc ñu ne ñun dañ doon fo rek di kii di mooy fob yi ñuy def dañ doon fo di kaf lan la yàlla wax qul abillahi wa bi ayatihi kuntum laa tastahzi'u qad kafartum ba'da imanikum ah yàlla ak yonent ngeen di fowe maa dafa am mbir yoo xam ne kenn warul foo ba yegg si fa mbiru diine kenn du ko fowe booy foo foowal ci àdduna bi caaxaan yaa ngi nii foowal ba doyal mais mbiru yàlla mbiru yonent alquran sunna yonent mais nag réew moo xam ne président bi day day day day day diingat yonent bi kat théâtre kat yi mën nañoo dem ca yàlla réew moo xam ne président ba day diingat yonent bi ah kon nit ña théâtre kat yaag nit ñaag nangam nangam bu leen neexee ñu wax yàlla lu leen neex waaw tout court parce que bu fekkente ne weñ gaa nga bañ a ca mbañaxaan nga weñ nga loolu olof yi wax weñ gaa nga bañ a ca mbañaxaan nga ku ko mën a jubanti kenn mënu koo jubanti kenn du ko jubanti boo ko jéemee jubanti mu damm mu ngoog ñun suñu weñ gi ma nga bañ a ca mbañaxaan nga moo tax kenn mënu ko jubanti dañuy tëgg dañ tëgg bi day dur ba sonn loxoom martu bi dana fet loxoom yi naaj deretal waaye weñ gi du jubanti parce que fa mu baña la ñun nag loolooy suñu wax suñu dëkk bii ma nga yàqoo ca kaw waaw ca kaw la yàqoo ngoog kon nanu delluwaat nekk ay jullit bu nu caaxaani àdduna yóbbaale yii nuy dégg ak yii nuy foog amul alaaxira de képp ku jàpp ci ñun ne mën ngaa nekk ci loo neex ba ëllëg alaaxira am na kuy ñëw rek daan ne yàlla euh, asalaamaaleykum euh, kii kii ci man la bokk na dugg loolu amul alaaxira amu fa waaw ndeysaan yan ibrahima yàlla da koo yàlla ibrahima yàlla da koo teel a woon mbir yi mu leer ibrahima dafa toog ba ci yàgg mu ne yàlla suratul baqara ah suratul baqara ibrahima ne yàlla subhanahu wa taala yàlla damaa bëgg nga jël sama njaboot ñoom ñëpp ah nga defal leen lu baax nga may leen ñu dugg àjjana nga may leen ñu lekk ñu naan dëkk bi bu ñu fi am problème yàlla ne ibrahim ibrahima daa ñaan ba ñaanal njabootam daan ne yàlla ak sama njaboot wa min zurriyati yàlla boole ci sama njaboot lan la yàlla wax ibrahim laa yanaalu ahdi azzalimin ibrahima sa njaboot gi ngay ñaanal tooñkat yi bokkuñ ci de sa njaboot bu dee dañuy tooñ duñ ci bokk ibrahima gis nga ba mu gisee comme ñaan na lu baax ba ñaanal njabootam yàlla ne ko génn ci sa njaboot ñi mën a tooñ duñ ci bokk ibrahima ba muy wax yàlla na nga dundal adduna bi dafa ñaanal ñu baax ñi kese bëgg a bàyyi yéeféer yi yàlla ne ko waman kafara qaala waman kafara yéeféer yi sax danañ dund loolu borom xam-xam yi bu ñuy firi ñaari aaya yooyu ñaanu ibrahima ibrahima ñaanal doomam yi mbaax ba ñaanal leen teraanga aljanna yàlla mu ne ko tooñkat yi bokkuñ ci ibrahima ñëw fi tey ñaanal jullit yi kese yàlla ne ko dugal ci yéeféer yi ci lañ bokk kon kon yàlla mooy kan lan moo tax ibrahima dafa yaakaaroon ne bee mu def njuumte la mu ko bu ko rectifier fii yàlla ne ko déedéet man dafa am loi yoon wu ma rëdd rek xawma sàmba xawma demba xawma ku weex xawma ku ñuul li ma xam mooy ku ma jaamu adduna bi nag maa fi indi ñëpp ñëpp maa leen di dundal waaye bu may fay ñi ma jaamu laay fay loolu la yàlla bëgg a wax Ibrahima adduna bi maa fi indi ñëpp ñëpp ay lekk ñëpp ay naan ñëpp ay dund soo fi dof dof la yow jullit bi sax yéeféer bi raw la gën laa neex adduna
ma ne waaw boo demee ci banque bee waaw pour liggéeyaloo waaw
yoroo benn kayit bu ñu mën a fayee ko doo bëgg a fayee ko doo fayeeku mukk billaahi leer na nañ kon aaye ñaari aaye la ñuy jël aaye bu njëkk bi liñ ciy jële mooy lii ram amul yowmal qiyaama ci ab yéeféer jotu amul ci ab yéeféer su ko yàlla tàbbalee safara dootul génn ñetteel husnu taalil lil amri wa nahyi bima yusajjiu ala al imtisaali wa tarki dañu war a waxtaane di leeral ci loo xam ne dafay tax nit ñi jublu ci santaane yi bàyyi tere yi waaye di leeralal nit ñi lépp loo xam ne da leen di sawarloo ba nu mën a jàpp ci ndigalal yàlla bàyyi tere yi loolu dañ ko war di def tey jii dafa jaadu woon ci weer wi nu nekk rajo yeeg télévision yeeg dëkk beeg kër yeeg nangam nangam yëpp
delloo jullit yi ci yàlla ndax weeru koor weeru dellu ci yàlla la yàlla dafa bëgg nu dellu ñu tàmm ko weer wi benn benn ñaar ñett ñeent ba ñu am fanweeri fan nit bu toogee di jaamu yàlla 24 heures sur 24 julli jàkk jàng alquran zikr tudd yàlla saraxe aar say bët ci lu bon aar say nopp ci lu bon aar aar say cër ci lu bon ba weer wi jeex war nga am formation war nga tàggatu man a tàggatu tàggatu kon weeru koor weeru tàggatu la laa yàlla loolu la bëggoon kon dafa jaadu woon tey dëkk bi yépp ñuy wax ci nit ñi lu leen tàggat jëme leen ci yàlla ndax bu weer wi jeexee am ñoo xam ne moom comme dugg nañ ci ñu lang ci bañ cee génnaat léegi-léegi bi may ñëw maa ngi mbokk yi ñoo àndoon bi ñuy génn croisement Kër Massar rek ma naan ko xoolal ñee ñee dañu ngay añ waaw waaw ñee dañu ngay añ ña ngi ca taabal jaay añ gis nga ko te tey lu yéeme mooy boo demoon nga leen asalaamaaleykum ñu ne waaleykum salaam boo nee nu ngeen tudd nga dégg ñu ne Abdallah Moussa Omar Ousmane. hmm? waaw mu nga ñaareel bi li ñuy jëlee ci aaya yi mooy loolu kon insha allah rapidement sunu ñaari aaya yi mbokk jullit yi loolu lañ ciy jëlee nas bi mooy nii. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم sunu borom ne ndeysaan na yàlla yërëm fay mag man doon jàngal di nu tafsiral alquran da doon wax inna alladina joogis kafaru tegu ci seeni borom alkunan waaw inna lazina joo jàng ci alquran kafaru tegu ci ñooñu seeni borom alkunanu mu ne inna lazina joo gis amanu tegu ci ñooñu seeni borom texe nañ sunu benn bii nag tey mooy inna lazina kafaru yàlla nee na inna lazina wóor na te day dëgg allazina ismu mawsul yàlla nit ñi lay waxal inna lazina ñeel na gaa ya nga xam ne kafaru danoo weddi yàlla ñii law anna lahum cëy sunu amoon maa fil ardi lépp lu nekk ci suuf xanaa loolu doyoon na yàlla mu ne jami an mboolem seen nga boole ko wa mislahu ak lu tol noonu maahu ànd ci li yaftadu bihi ngir ñu jox ma ko man yàlla ñu jotu seen bopp ah min azabi yowm alqiyama ci mbugal mu yowm alqiyama yàlla mu ne ma tuqubila minhum kenn du ko nangu ci ñoom déggu leen aaya bi de des na inna allazina gaañ nga xam ne kafaru dañoo weddi yàlla bañ a taxaw ci ay santaaneem bañ a bàyyi ay tereem nekk ci lu leen neex ba dee fekki leen ci loolu ñu dee dem ci yàlla ba ñu dekkee ci kanamu yàlla yàlla ne leen comme da ngeen maa weddi woon tey safara ngeen jëm ñu ne yàlla ñun dey am nañ lu toll ne suuf ci alal waaw suuf waa ji taxaw ci kanamu yàlla ne yàlla yor naa lu toll ne suuf ci alal ki yor xanaa lu toll ni suuf ci alal kooku lan la ni suuf toll waa ji loolu la yor yàlla ne ko ha mu ne am naa sax leneen encore lu toll noonu muy ñaar yàlla mu ne loo ci bëgg mu ne ma jox la ñaar yépp nga bàyyi ma tey bañ maa dugal safara ma dugg aljan yàlla mu ne kenn du la ko nangul tey ah kon mooy jotu amul yowmal xiyaam jotu jotu mooy lan mooy policier dafa jàpp sa permis nga jox ko 2000 pour mu bàyyi sa permis bi ah ab gendarme dafa jàpp sa permis nga jox ko 5000 pour mu de bàyyi la ab douanier dafa jàpp sa marchandise nga jox dara pour ñu bàyyi la ab ab ab ab ab ab avocat wala ab juge dafa tëj bëgg a tëj sa mbokk mi nga jox ko un million jaar la ko ci suuf ñu bàyyi la yàlla xamul loolu te aaya yii ci alxuraan du benn rek yaa ngeen ci suratul maarij yàlla mu ne bu ñu demee yowmal xiyaam yawaddul mujrimu yéeféer bi dana bëgg law yaftadi même baat bi la yàlla indiwaat mu jotu baat bi yàlla di wax fii li yaftadu baat bi moo ñëwaat ca suratul maarij yéeféer bi dana bëgg ëllëg bu ndemee yowmal qiyaam mu jot min azabi yowmi izin ci mbugalum keroog bi banihi ci ay doomam borom kër gu taxaw yàlla ne ko safara nga jëm mu ne yàlla amoon naa ñeenti soxna soxna su nekk am naa moom huit doom ñaata lañ ah mu ne yàlla ñoo ñëpp jëlal dugal safara yàlla mu ne ko déedéet wa bani mu ne yàlla boole ci jabar yi muy ak ñeenti jabar yi boole ko ci wa saahibatihi yàlla mu ne ko déedéet waa ji lu mu ci yokkaat wa fasilatihi lleti tuwi ak mbokkam yi nga xam ne ñoo ko jege ci deret ci ndey ak baay yi ñaari famille yëpp mu ne yàlla xanaa nag noonu doy na sama jabar yi sama doom yi ak sama ñeenti soxna yi ak sama mbokki deret ndeyjoor ak càmmoñ yàlla mu ne ko déet mu ne wa man fil ardi jamian boole jëlal waa suuf yëpp sama ndey ak sama baay sax nañ ci bokk ñu dugg safara pour man ma rëcc yàlla mu ne ko kalla innaha laza li wóor tey mbir mooy safara bii laa la préparel te laza la tudd pour yàlla wax ñu laza mu ne tad'u man adbara wa tawalla safara si boo taxawee ci bunt bi bu la yàlla ne fii nga jëm nga bëgg a daw safara si danaan la kaay nga yegg si taddu day woo man adbara ku wane ginnaaw wata walla bëgg a daw danaan la cas dugal mel ne as yi la yore ba pare bu la dugalee ba pare yàlla mu ne fa jamaa wa wa awaa su duggee ba gaa yi dajaloo day mel ne dañ koo tëj ah mu képp ne tekk nag gaa yi nekk ci biir di yuuxu yal nañ ci yàlla musal kon aaye yu mel nii damay faral di wax ne dañu ko nëbb waxuñu dëgg gi loolu tax dëkk bi mel nii waaw dañu waxal nañ jaamu yàlla dañ nu ko waxul suñ ñu jàngaloon alquran wax nu dëgg yàlla bi firil nu ko leeralal nu ko kon nit ñi nit ñi yo- ñemewuñu yàlla de amul kenn koo gis ku ñeme yàlla waaye nag dafa am ñu xamul yàlla kenn du ko ñeme ndax yàlla xejul ci nit yàlla du moroomu nit yàlla du sunu moroom waaw yàlla du sunu moroom moo tax kenn waru ko ñeme waaye nit ñi duñ ko ñeme waaye dañ ko xamul li tax xamuñu ko dañ leen ko nëbb kenn jàngalu leen ko kenn leeralu leen ko même prime alxuraan sax da ngay dégg ñu naan alxuraan de kenn farul fekk fu ñu koy firee léeg-léeg ñu ne la jëlal fas solal ko dalli weñ léeg-léeg ñu ne la jëlal fas solal ko dalli weñ nga dawal ko ba dalli weñ yi xoosu ba jeex bul déglu mukk fu ñuy fekkee al fu ñuy firi alxuraan ndax alxuraan waxu yàlla la kenn waru ko firi suñu firiwul alxuraan nu nuy dundee alxuraan ay luwaa la def leen bu leen def def leen bàyyi leen lii laa bëgg lii laa bëgg ngeen mel lii laa bëgg ngeen defal ma loolu mooy alxuraan suñu firiwul alxuraan kon nan la ñuy nan la ñuy jullee suñuy julli lu ñuy wax kon nan la ñu xamee ne dañoo war a julli weer wii nuy woor fan la nu yàlla waxee ne damaa farataal ci yéen koor fan ci alxuraan luy aaya ba yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum siyaam kama kutiba ala alladina min qablikum allakum tattaqun suñu firiwul alquran naka lañ xamee ne yàlla dafa bëgg ci ñun ñu julli fan la ñu yàlla sante ñu julli wa aqimi sala du dëgg suñu firiwul alquran naka lañ xamee ne dañoo war a joxe azaka wa atu zaka suñu firiwul alquran naka lañ xamee ne dañoo war a aji ah walillahi ala nnas xijju lbayti man istataa ilayhi sabil wa man kafara fa inna allaha ganiyun anil alamin suñu firiwul alquran naka lañ xamee ne dañoo war a jàpp yaa ayuha alladina amanu ida qumtum ila lsalaa kon alquran moo ñëw di nu leeralal jaamu yàlla gii ñuy def te nga xam ne moo tax yàlla bindunu ñu ñëw ci kaw suuf te di ko def alquran moo ñëw di ñu koy di ñu jàngal jaamu yàlla googu naka lañ koy defee kon alquran foog nu firi ko képp kuy wax ne alquran waruñu ko firi wala di ñu gëmloo ne alquran rakkal la kooku nax nanu naka la alquran di nekkee rakkal xam ngeen rakkal ndax xam ngeen rakkal rakkal lan lañ ci génne diw gi ñu ne diw gi mun nañ ko jël rakkal bi ñu dem jox ko xar yi léegi nag ñu ne la alxuraan rakkal la diw gi yóbbu nañ ko nal nañ ko yóbbu nañ diw gi def nañ ko nangam loolu loolu waxu yéeféer la képp ku ngeen dégg mu takk rajo naan alxuraan rakkal la kooku ab yéeféer la moog waa ji ñu doon teg léegi kàddoom yi fii ñooyam moog waa jooju ñooyam waxu yàlla nga ni rakkal la ah wala wax yàlla la nga ni ja ah jarta jàng de ndax ràkkal la nal nañ ko waaw cox bi lañ fa bàyyi kon alxuraan cox la te waa ji wax loolu li ko tax li tax ngeen xem ne yàlla da koy fenloo su waxee loolu ba pare bu julli jotee day taxaw jàng alxuraan lu tax jàngul diw gi lu tax mooy li ma wax rek léegi mooy dañuy nax waxu nunu dëgg waaye yàlla moom li mu wax du soppeeku gis ngeen aaya yaa ngi nii ne keng lii nii ma tiim fii am na ñoo xam ne seen téere yi français moo ca nekk soo ko firee même teg teg yéen ñi jàng arab yéen a koy firil seen bopp ñu jàng français di ko firil seen bopp ah lii nii ay texte la yoo xam ne sans commentaire yàlla nee na inna allazina kafaru gaa yi weddi yàlla law anna lahum ma fil ardi suñu amoon lu toll ne suuf jami'an mboolem yàlla bu ne woon suuf rek doy na waaye daf ko tawkiid mu ne jamian mbooleem suuf mbokk yi suuf nu mu toll nu suuf toll kan ci yéen moo xam suuf nu mu toll ah kan ci yéen moo xam fu- su- suuf si poids am ñaata la kan moo peese suuf si ku xam ñaata pepp la ku xam diisaay bi sunu borom mu misaal nu loolu ndax nu bana waru mu ne ki weddi yàlla su amoon lu toll ne suuf mbooleem seen suuf ñeenti côté yépp ñu yaakaar ne foofu la yàlla mu ne wa mislahu maahu mu amaat lu toll noonu boole ko ci allahu akbar su waa ji amoon conteneur u xaalis gaa yi di yéemu di jooy mu ne pourtant yéen benn bi ngeen gis rek daa di xëccaat bunt yi ñu ne kërërërërër mu ne yée ngeen di seen tamit ci la bokk te yépp a fees comme bii nu gaa yi def gaa yi ko doon ñaan si te doon yéemu nu ñuy def dañ naan ko neexut ba neexut nag waaye yow mii yaay waaj bu yàlla nee waaj ki jaamuwul yàlla ki deful santaane boroomam nekk ab yéeféer su amoon lu toll ne suuf mbooleem seen mu amaat lu toll noonu boole ko ci wa mislahu maahu pour lan lan la koy dee bi mu egsee yowmal xiyaam mu ngi indaale conteneur yooyu yëpp bu benn mbir rek la bëgg li yaftadu bihi ngir mu jote ko boppam mu jox ko yàlla mu neexal yàlla ger yàlla teg lo ci loxo yàlla dara pour dugg aljanna xam ngeen suñu borom lu mu wax suñu borom du du tëral benn tribunal ba pare naan maa ko waxoon waxaat waxeet wala maa ko taqaloon setalaat naa ko dégg naa tey ci journée yi président mu ne Karim Karim Wade day day jullee ji këram këram lay jullee ji waaw léegi ndeysaan ne Sénégal la neex Sénégal daal ku mu neex ñu ne sàcc la suñ toogee ñetti weer ñu ne du dara deful dara def nañ ko Idriss Seck après ñu ne deful dara def nañ ko ku jigéen kooku ñu ne deful dara ñu def ko waa ji Karim ñu ne deful dara léegi ana ñi def ana ñi def ana ak li ñu waxoon yëpp waa ji da koo jël dëkk bi di tàkk waa ji waa ji ñuy wax ay façon milliards yoo xam ne waa tët tët tët tët tët tët tët man yaakaaruma ne ko xaalis loolu am na ci àdduna bi ñaata milliards lañ doon wax ay mille milliards allahu akbar ah il a ay deux mille milliards ñu ne benn waay moo ko jël fu ñu mujje ñu ne day day ñu ne day corrifier këram waa léegi moom mbir mi nu mu demee dañ ñu doon nax wala man war nañu wax dëgg quand même war nañu wax peuple bi dëgg ñun dañ doon fen waa ji deful dara wala waa ji dafa jël ñu baal ko wala wala mais affaire dafa yomb man nag tey jii bu ma yoroon déclaration di ko déclarer di ko di ko yónnee président dama naan ko président bàyyi nañ Luc Nicolaï da doon trafiquer drogue bàyyi nañ benn waay bu rey ay nit ñu suul nit ñañ kenn ki sax deewuloon ñu bàyyi ko mu ñibbi këram bàyyi nañ ki doon trafiquer xaalis yi yor machine bi këram bàyyi nañ ko bàyyi nañ kii tey ñu ne da doon sàcc ak ñeneen ñu àndaloon waaw imaam Ali Ndaw kon lu muy def ci kaso bi ten koo bàyyi moom it mënuñu bi këram korité ji comme bàyyi nañ ñi def ñëpp ñëpp ñi nga xam ne teg nañ ñun ñëpp teg nañ sunu bët ci ñooñu lu ñu def wala tegu leen seen bët léegi nag imaam bi moom ñun gisagun woon lim def lu tax kon duñ ko bàyyi ay tuuma rek xoolal niñ ko jëlee këram ah ay 3 heures du matin waaye incha allah na muñ rek na muñ buñ ko àttewul fii buñ ne dagat ci biir bàmmeel ba dekki taxaw ci kanamu yàlla wallahi lépp dana leer bu leerul fii day leer fële na muñ rek incha allah yëpp yàlla dina ko leeral na muñ xam ne nii mooy nii mooy sunanullah fil ard mooy nitu yàlla yeeg yonent yeeg ñu baax ñi moom lii rek foog ñu ñam kaso foog ñu ñam ay métit imam malik nii la woon abu hanifa nii la woon Shafii nii la woon Ahmad nii la woon imaam Ahmad dañ ko dugal kaso waaw imaam Ahmad ibnu Hanbal ko dugal kaso bés bu nekk ñu caw ko téeméeri yar bés bu nekk danañ ko génnee caw ko téeméeri yar gaa yi mu àndaloon di daw di bàyyi di bàyyi di bàyyi di bàyyi di bàyyi ba mu des moom taalibe yi wër ko ne ko imaam sonn nga weddil rek waxal rek ñëpp wax nañ mucc waxal mu ne xool leen ubbi fenêtre kaso bi gaa yi wér ndu xool mu ne ñii ñëpp mën la ñuy déglu su ma tarxiisee rek ñi ñëpp safara lañ jëm benn bis ñu koy dóor tubéy bi ñoor bi dagg ñu gis ay loxo jóge kaw asamaan di ko wadd la ilaha illallah moo tax na muñ rek alhamdulilah yàlla baax na mbokk yi sunu borom nee na ñii ñii nga xam ne ñoo weddi woon seen borom subhanahu wa taala ñëw ci kanamu borom bi keroog naan dañuy jot seen bopp li yaftadu bihi ne dañuy jot sunu borom wax na mu leer naa ñi min azabi yawmi yawma alqiyama ndax mbugalum yawma alqiyama moo tar waa ji taxaw ne damay jot yàlla li yëpp maa ko moom waaw yàlla jëlal sama ndey dugal safara yàlla ne ko déedéet jëlal sama baay yàlla jëlal samay doom yàlla jëlal sama samay soxna yàlla ne ko déedéet mu ne yàlla jëlal waa kaw suuf yëpp yàlla ne déedéet yàlla yemu ci loolu waaye yàlla ne la waa ji dafa am lu toll ne suuf yépp soo ko boolee waaye am lu tolaat noonu muy ñaar comme bu njëkk ba pour mu jox ma ko man yàlla pour mu mën a mucc ci mbugalum yowmal qiyaam yàlla mu ne maa tuqubbila minhum kenn du leen ko nangul tey leer na de aaya bi aaya bi mbokk yi moom dong bu doyoon ci alxuraan bu wàccoon moom dong war na noo doy aaya bii rek do waroon naa doy ñu jàjju waroon naa doy ñun ñëpp ñu xippi sunuy bët waroon naa doy ñun ñëpp ñu firi sunuy nopp xam ne yàlla waxantuwul yàlla du waxantu yàlla li mu bëgg ci nun mooy nu jaamu ko yàlla wax na ñaari innal lazina mu ne amanu ñooñu texe nañ kafaru mu ne ñooñu texee di nañ ñooñu safara lañ jëm kon jeex na mbir mi leer na kon nag léegi ku nekk yow yaay seet sa bopp foo bëgg a bokk ndax ci waa amanu nga bëgg a bokk wala ci waa kafaru nga bëgg a bokk waaw xoolal borom bi li mu wax mu ne tey jii ñii bu ñu bëggoon jot jot jotu seen bopp ah yàlla mu ne maa tuqubbila minhum du ma leen kenn du leen ko nangul loolu leer na di kan mooy wax yàlla yàlla mu ne kenn du ko fi nangu yàlla du du du tribunal bii de nga xam ne dañu naan la eh, set nga tax nga suba ñu ne set nga déedéet fële yàlla maatu ci yàlla lu fa xew mooy samay wax du soppeeku maa yu baddalul qawlu la dayya yàlla waxam du soppeeku yàlla wax na ba pare jeex na li mu wax rek jeex na kon ku yebo nekk ci sunu borom nee na walahum kon yàlla ñooñu boo leen nangalul kon luy xew mu ne walahum am nanu keroog foofu ñooñu gaa yooyu azabun mbugal alimun mu metti mu tara tara tara moo xam ne kenn mënu koo nat kon doomu ndey yi mbokki jullit yi fa innaha illa lima daat ilayhi al aya al ula min amri bittaqwa wa talabi al qurbi min allahi taala wa dalika bil imani wa salihi al amali لأن العذاب الذي أمروا باتقائه بالتقوى عذاب لا يتاق أبدا ndeysaan mu ne li tax borom bi wax wax ji nee na illa gi mooy nanu ragal yàlla nanu ragal yàlla def lépp loo xam ne day tax ñu jege yàlla loolu moo tax yàlla wax ci aaya bi ci kaw wabtagu ilayhi alwasila wa jaahidu fi sabili laallakum tuflihun mu ne illa gi mooy lii pour lan nanu jaamu yàlla jéem koo jege ci ay jëf yu baax ndax mbugalum yàlla kat mbugal gi yàlla dina wax nan ko mooy tëndiku nee na mbugal googu nit àttanu ko de mu ne yàlla ne mooy tëndiku leen mbugal googu maadaama mbugal googu nit àttanu ko kon mooy tëndiku leen ko moo tax mu ne naahiika na la doy naahiikum na leen doy mbokk yi an allazina kafaru naka ñi weddi yàlla law anna lahum ma fi l ardi jamian suñu amoon lu tol ne suuf min maalin saamit wa naatiq ñaari alal ñoo am alal bi ko borom xam-xam yi wax dañu ne alal ñaari façon la saamit wa naatiq dafa am alal juy wax ak alal ju noppi loolu mooy lan alal juy wax ak ju noppi mooy ban façon wax saamit wa naatiq bu ñu borom xam-xam yi di wax ne alal ñaar la dafa am alal bu noppi alam buy wax loolu luñ ci bëgg a dégg suñ ne alal ju noppi mooy xaalis bi or bi jamaa bi yooyu dañoo noppi duñu wax mu fan leen tëj lañ naan pat yii wax nag mooy jur yi xar mi bu xiifee nu muy def ah gëlëm gi ah nag bi yooyu dañuy wax te yëpp alal la moo tax mu ne yii yëpp bu ko nit amoon ci suuf ba mu fees bu benn waay amoon adduna bi nga xam ne amul ay kër dañ koo xaaj ci digg bi côté bi yëpp jur la côté bi yëpp ay alal la ba mu fees benn waay moo ko moom suuf sépp ñuy tiit waa ji amaat deux ndeysaan xoola waa ji mujj dugg aljanna waa ji mujj dugg aljanna bi mu nee tël yàlla mu ne ko duggal kër gi de yow lañ ko may mu xool kër gi mu toll ne adduna mu ne allahu akbar lii man kenn yàlla mu ne ko dollil naa la ci beneen bu toll noonu muy ñaar ki gën a tuuti kër aljanna këram moo ëpp àdduna te bi mu yéemoo yàlla daf ko mayaat beneen te moo gën a tuuti le kon ki fa gën a réy këram nu mu toll fii da ngay gis benn waaye bu am ñaari parcelles yu dend rek te kenn dootul dégg kenn dootul dégg allah wala ku fi am benn hectare rek ku ñu may benn hectare rek saa yi mu allahu akbar ki gën a tuuti kër aljanna ëllëg yowmal xiyaam këram moo ëpp àdduna te bi mu yéemo ma ne yàlla da koo may keneen da koo may leneen moom waa yooyu ndeysaan bi muy dugg ba ci buntu kër gi malaaka bi jàpp ci loxo bi di ko yóbbu ci biir kër gi daa jékki-jékki rek sujjóot malaaka bi xool ko mu sujjóot malaaka bi ne ko lan la mu ne ko damaa gis yàlla mu ne anam mu ne mu ngi nii mu ne ko lii fleur la lii fleur la de fleur la gis sujjóot jaawale koog yàlla allahu akbar mu ne caraax dox siggi dox ànd ak malaaka bi ba buntu këram rek mu sujjóot malaaka bi ne ko lu xewati mu ne ah léegi moom yàlla laa gis mu ne ana mu ne mu ngi nii mu ne kii kenn ci sa soxla ni la urul ay ni la waaw waaw moo tax bu ñuy gis yàlla duñ ko mun duñu duñu duñ ko mën a dékku duñu mën a dékku gis yàlla te danañ ko gis de danañ ci yàlla boole waaw aljanna bu ñu duggee aljanna danañ gis yàlla wallahi yàlla moo ko wax wujuhun Allahu akbar Allahu akbar yal na yàlla dimbale ñun ñoom ñu gis ko ñu bokk ci ñu bokk ci ñu koy gis wujuhun yawma idin naadira ila rabbiha ente innakum sa tarawna rabbakum di ngeen gis seen borom de comme ni ngeen di gisee weer wi ndax am na lor gu mu leen lor ay ne déedéet mu ne jeex na noonu ngeen di gisee seen borom ëllëg yowmal xiyaamati wala fii nit nit léeg-léeg mu gis kenn ci kilifa yi rek day xëm ah léeg-léeg ci télé yi ci télé yi ñu jël benn mbër rek wala benn artiste nëbb ko yëg ne diw da koo bëgg ñu ñëw ba këram rek ne ana diw mu ne maa ngi nii rek ñu ne ko indil nañ la gan mu génn rek gis waa ji rek xëm bi mu ximuli ko lan la mu ne dañ maa bett kii man dama ko bëgg ngeen indil ma ko tey ndeysaan am na ñoo xam ne ne bi Michael Jackson di dund Michael dugg ci scène bi jël mi ne hë rek gaa yi xëm am ñu dee ah waaw kon ëllëg ñu gis yàlla nan lañ war a def allahu akbar li gaa yi naan soirée boobu moo jara fonki keroog bu nu yàlla dajalee ci aljanna mu woo yonent yàlla daawud mu ne jàngalal gaa yi alquran da kii zabuur jàngalal gaa yi zabuur daawuda jàng daawuda jàngeen dañ ko dañ ko joxoon sahaaba ba muy jàng yonent ne jox nañ ko mazamir min mazamiri daawud ubay ibnu kaab yonent bi ne jox nañ ko mazamir min mazamiri daawud bu daan jàng alxuraan yooyu ne wuu kii de benn ci fili bu daawuda yi lañ ko jox ndax ni mu mënee jàng kooku bu jàngee pare bu daawuda jàngee ba pare ñu jox micro bi Seydina Muhammad mu war a jàng alxuraan fii da ngay dégg ñoom Basfar ñoom Huzayfi ñoom Matrut ñoom Xalilul Xusayri ñoom Manshawi ñoom ayub muhammad ayub ñoom shaatiri ñoom ah abdus samad abdul basit abdus samad ñoo jàng rek nga gis fi waa ji di su yonent bi jàngee nag kon mbokk yi su yonent bi jàngee yan nopp moo koy dégg ki nga xam ne alxuraan bi ci moom la doon wàcc mu jàngale ko ba génn àdduna mu war a toog tey gaa yi toog ah mu war a toog ci podium bi war a jàng loolu rek loolu rek waroon naa tax ñu jaamu yàlla loolu dong dong doyoon na su fekkoon ne dugg àjjana ah da ngay gis yonent yàlla Muhammad mu toog rek jàngal alxuraan rek loolu dong doy na loolu kes doy na amoon na temps suukar dafa manqué Sénégal suukar mosoon na manqué Sénégal boobu Sonadis yi ñoo fi nekkoon boy ngeen bàyyi baal ma de paa yi laay waxal léegi nii bu Sonadis yi ñoo fi nekkoon ndeysaan am benn Sonadis bu ñu bu ñu indi suukar rek nit ñi daw ñëw rang suba ba ngoon benn waay jënd génn ñaqatooy xëpp simbi mbubb mi di ko wañ ñu ne ko sawaay lii rek lii nag mu ne paquet suukar bi dong laa bëggoon te am naa ko moo ngi nii paquet suukar kese laa bëggoon am naa ko mu ngi nii mu naan nii mbubb mi mbubb mi naan cer ñaq ñu ne waaw sawaay ñaq bii nag mu ne paquet suukar dong laa bëggoon am naa ko waaw ma ne ñun tamit gis Seydina Muhammad keroog aljanna mu toog jàngal nu alquran ñu dégg ko sunu nopp yii
jar na lu nekk loolu dong doy na ñun tamit ñu ñaq comme waajoo ñu na mu ñaqee waaw waaw waaye da ngeen yaakaar ne Muhammad bu jàngee pare day doy yàlla ne xaar leen ma jàngal leen allah allahu akbar kon mbokk yi loolu moom fu ñu jëm
suñu doom bu jàngee fu ñu jëm allahu akbar yal nañu yàlla dimbali yal nañu yàlla dimbali
sunu borom nee na
nun yàlla taxaw sunu borom nee na mu ngi wax nag léegi ñooñu nga xam ne tey waa jooju nga xam ne dafa weddi woon boromam yàlla dimbali na ko ba mu weddee bi muy ñëw àllaaxira indaale na lu toll ne suuf si ci am am ñaaram bi mu ñëwee ne daf koy neexale yàlla pour yàlla bàyyi ko musal ko ci mbugal mi yàlla xamal ko ne loolu amul fii fii kenn du ko fi nangu yàlla nee na ma dugal waajooju ci mbugal mu métti léegi na xoolal borom bi di nu nettali waajooju fu muy mujje mu ne ñooñu yàlla natt ba ñu dugg foofu tey nga xam ne dañoo bëggoon ger yàlla subhanahu wa taala sunu borom loolu amul folo jaamu rek yàlla mu ne yuriduuna namm nañ bëgg na ñoom gaa yooyu nekk ca biir safara an yaxruju ñu génn minan naari ci safara yàlla mu ne wa maa hum bi xaarijiina minha dun génn tey waaw lii musiba la mbokk yi démb joxe woon naa ay misaal yu ndaw ma ne kenn ku nekk ci ñun fii toog suñ la ne woon kaa ñu koset berin almet teg ko ci sa nopp ba berin almet bi fay ñu jox la cent mille nga ndogu ji ku koy nangu ci ñun ci biir jàkka jëkkati sa loxo ñu teg la ñu teg la almet allahu akbar ngir yéegoog xale la ndey sànn xale la day xale looloo tax kon nag lii laa topp loolu laa leen doon wax démb ma ni leen xale day fekk gaynde ci buntu kër papaam gaynde gi tëdd tàllal tànk yi xale bi yéeg jàpp ci kawar gi naan ko Ali te di dóor naka ay kurpañ Ali waaye papa ji bu nee tëll séen ah gis gaynde la mu xool ko muy gaynde day delloo bunt bi te dina ne jabar ji faati ak fala xeeg naas ñàkk nañ doom te it nag bu góor gi génnee gis kay dégg ah ah
seen ñaari nag yi bët yi eh, jàkkaarloo ah gaynde gi moom fàtte na xale bi bàyyi bàyyi bàyyi ba baay ji la koy wax waaw lay lay waaw gaynde gi danaan gaynde gi danaan doom ji danaan xale bi yëg ci kawam yow xamoo ma moo tax sa baay ma xam yow xamoo ma moo tax moo tax du ma la def dara yow xamoo ma waaw léegi nag mbokk yi imagine leen ñun bu fekkee ñemewuñ loolu beneen almet léegi jëlal sondel ñu ne la nga teg sa loxo rek ba sondel bi jeex rek ñu jox la un million ah boobu dafa tuuti jëlal fourne gaz bi ñu ne la benn oto ngi nii dañ ko def ay million ba mu fees soo toogee ci gaz bi ba gaz bi jeex rek buñ paree jëlal oto bi ak millions yi nekk ci biir maal bi dafa fees ginnaaw fi nit ñi nekk dafa fees chauffeur bi fu muy dendal dafa fees nga jëlaale oto bu bees tax la jëlal lépp ki la ko wax doo ko déglu sax da nga naan moom kii saa waay waxal leneen waay ah allahu léegi nag te yàlla avertir nañu wax nañu ne bii safara bii ñuy gis fii ci àdduna bi di ko toggee muy gaz bi muy matt yi muy këriñ gi muy lépp sunu borom xamal nuñu ne balaa mu koy wàcc fii ci àdduna daf ko raxas ay junni junni junni junni yoon ba mu sedd mel nii mu doog ñu koo indil nee nañ aadama bi mu wàccee ci kaw suuf aadama bi mu nekkee aljana da doon lekk aadama bi mu nekkee ci àdduna da doon lekk sans sans togg ndax foofu lépp a ñor li mu bëgg am daf koy am day bëgg lekk rek lekk bi ñoo mu lekk fere affaire yi dem yoonam bi mu wàccee ci àdduna nag ndeysaan mu xiif moom aadama mu ne yàlla damaa xiif may ma ci sa lekk bi yàlla mu ne ko léegi lekk yooyu ngay lekk aadama rëbb ba jàpp am picc rey ko suqi ko mu ne yàlla lii lii ñorul waaw mu ne ko lakk ko mu ne fii amul safara may ma ci sa safara ji soosu ma lakk sama picc mi yàlla mu ne ko aadama mu ne ah ko safara xëjul ci kaw suuf yàlla may ma ci ndax ma mën a lekk mën a dund borom xam-xam yi nee nañ yàlla dafa dem safara dagg fa lu toll ne bekk sukkar tëmbal ko ci géej gi géej gi mel nii mel looloo indil géej gi révolte muy def ay vague mouvement bëm di daanu pour mu sedd de yàlla daal koy jël dóor ko ci montagne yi montagne yi explosé bi montagne yi explosé am na lu tuuti lu tàkk fële ci benn ñax yàlla ne aadama jëlal ñax bele di lakk moom mooy safara àdduna li ci des yàlla daal koy buub delloo ko ne ko loolu xejul fii loolu mu ngi fii di leen xaar léegi nag lu mel noonu bu ci yàlla dugalee nit mu ne yuriduna namm nañ an yaxruju minha minan naar ñu génn leen ci safara soos waaye wama hum bi xaarijiina minha duñ fa génn kon fu ñu jëm suñ dugalee foofu nit ne dootoo génn tëj bunt yi ndeysaan yàlla nett nañ ci alxuraan ne gars yi bu ñu duggee safara di yuuxu nangami milliards yi at benn baat kese la ñuy wax mooy kii garde safara la ñuy woo naan ko yaa Malik waa ji Malik la tudd ud'u la ud'u lana rabbaka li yuxaffifa anna yawman min al azab ay waay ay waay Malik Malik wool ñu sa borom ne ko nañu may benn fan rek ñu noppalu benn fan waxuñu sax na leen yàlla baal benn fan rek benn fan benn fan yàlla bi muy wax ne boyal nañ safara lan la wax innaha tarmi bi sararin kal qasr ka annahu jimalatun sufur yàlla ne safara dañ ko boyal ba nga xam ne étincelle yi muy sànni tarmi bi sarar sarar mooy étincelle étincelle yi safara di sànni gars yi bu ngeen boyalee fourneau bu ngeen ataaya bu ngeen boyalee fourneau étincelle yi muy sànni nu mu toll ndax yooyu nit mën na ko mën nga ko def nii étincelle yi dafa tuuti étincelle yi safara ay sato lay sànni ay sato est-ce que sato am na Sénégal sato amu fi immeuble yi ngeen gis yëpp matul sato ah jegewu fi di ah dégg ngeen de waaw yàlla nee na safara nag sato ay étincelle yu toll ne sato innaha tarmi bi sararin kal qasr al qasr mooy sato ñu ne yàlla yaakaar na foofu lay mu ne ka annahu jimalatun sufr dafa zone ba mel ne ay gëléem yu mboq ndax bomb yi ni mu tàngee loolu dafa xaj ci yaramu doomu aadama loolu doomu aadama mën na koo dégg ñun sunu yaram yi nga xam ne boo ci toqalee waxuma nga teg ci sondel bi de nga toqal ci sondel bi rek fekkal kuy nelaw nga toqal sondel ci lex bi ba mu yeewu yàlla bu mu woor ba ngoon nag ba cinq heures jot billaahi yowmal xiyaam ngeen jëm balaa ñu leen di atte balaa nit ñi ñëw ah allahu akbar te toq bi laa wax de graisse bi graisse bi moom nga toqal ci kaw waa ji kon sunu borom wax na wax joo xam ne mbokk yi nan leen ci xalaat balaa ñuy dem àllaaxira waaw sunu boroom wax nañu wax joo xam ne war nañ ko tiim ak sunuy bët liir ko attentivement tadabbur gis nga alquran du hasard yàlla mu ne afala yatadabbaruuna alquran waaye yéen lu leen teree lu leen teree settantal alquran tadabbur nga xam ne booy liir alquran par xarf ngay liir par xarf par kalima par aaya di déglu xerewlu loolu mooy jàng waaye ñu pare déedéet afala yatadabbaruuna alquran law anzalna hadha alquran ala jabalin la raaytahu xaasian mutasaddian alquran bi su ma ko wàcce woon tey ci montagne yi montagne yi la yàlla wax de montagne yi doomu aadama ak montagne lépp doomu aadama yeeg montagne yi lépp mu ne di ngeen gis montagne yi di xotteeku di xar di mab ndax ragal yàlla ñu jox ñu téere bi ñun mënul ragal yàlla ah kitaabun anzalnaahu ilayk li tuxrija annaasa min azulumaat téere boo xam ne man maa ko wàcce ci yow pour lan pour mu génne nit ñi ci lëndëm yóbbu leen ci leer yàlla bi mu ko wàccee ba pare ci suratul kahfi kahfi def ñu wax ne ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum topp leen li yàlla wàcce ci yéen mu bàyyi koo ci seen borom téere bi xoolal li gën a yéeme da nga koy jox intellectuel français yéeféer yi ñuy tuub jullit ñi di ci jàng di ko jàng duñ gis benn njëriñ ah xoolal James James mooy jigéen boobu tuub France fan yee nga xam ne ndaw si li ko doon wër ci ay nit xejul ci stade bi li ko doon seetaan ci ay nit xejul ci stade bi li ko doon wër laa wax ci ay nit bu rëy buy way xejul ci stade bi président woo ko ba mu ñëw président France ne ko yow yaay ambassadeur u jigéenu France yépp ci àddina bi yow la def naa la ko ndaw si xëy rek daal di tuub dugg ci lislaam ki ko ne woon yow yaay ambassadeur bi ne ko yow yaa gën a bon ci si jigéeni France ndaw si lu ko tuubloo alxuraan alxuraan bu ñu ko jox na ko liir mu liir affaire bi neex mu liir affaire bi neex mu ne ndeke man sama alal ji ma am yëpp ndeke dëgg dëgg am na lu ma manqué woon mais téere bi moom gis naa ci lépp ndeke dëgg gaa ngi noonu la ndaw si bàyyee woy yi bàyyi soirée yi bàyyi àdduna bi ko xoolal benn journaliste si ne ko mais yow léegi doo am problème ak nit ñi niñ la doon wëree démb doo wéet mu ne ko déedéet dafa mel ne léegi laay doog a am jàmm ci sama biir xol léegi laay doog a bég mu ne xanaa xamoo boobu dama daan yor micro sax di way fekk nekkuma mais dama koy def rek c'est parce que dagg nañ billet ba pare maa ko organisé wala jël nañ ma fay nañ ma mais bu may dem sax du ma neex mais au mu ne fii ma toog nii dem leen ngeen liir ko mu ngi ci mu ngi ci net bi mooy ngeen déglu mu ne mais fii ma toog fii laa yëg ne léegi ma dama féex aw ma lenn lu nekk sama xol lu may lu fay ñaggi ñaggi yusuful islam loolu la moo ko tuubloo woon Christophe ah loolu moo ko tuubloo woon benn frère am moo dem Israël baytil maqdis di ñibbisi daal di xalaat lan laa ko war a indil cadeau daal di gis kaamil bi rek tra mu ne ko eh da ngay jaay li mu ne waaw mu ne indi am naa benn mbokk su ma demee may ko mu ñëw ku nekk di jël jël naa lii jël naa lii mu gis frère bi rek ne ko yow lii laa la may ne ko amu yow lii rek nga ma yéene mu ne waaw mu jël sawaay liir liir liir liir liir liir liir liir mu ñëw ne ko allahu akbar téere bi de li muy wax dama ciy dugg am na beneen xale boo xam ne xale bi yahud la su ngeen demee ci youtube wala ngeen dem ci facebook bi am na fa benn cheikh bu tudd nabil iwadi def na benn benn waxtaan boo xam ne waxtaan bi image la image am mooy dafa toog di wax mu ngi ko def ci benn xale bu tudd jack al yahudi jack al yahudi xale bu ndaw ah nekk yahud di jënd ci benn bitik bitiku góor goo xam ne Cheikh Ibrahim la tudd turki la bokk cosaanam mais jóge ne turki bu yàgg ñëw France yor fa magasin di jaay immeuble bi xale bi dëkk fa la bitik bi nekk ci suuf saa yu xale bi ñëwee di jënd ndékki nga xam ne ravitaillement ndékki bi xale bee koy jël si xale bi bu ñëwee dina sàcc benn chocolat ci paa bi góor gi xam ne patt noppi xale bi di sàcc di sàcc di sàcc di sàcc at yoo xam ne kenn xamul nu mu toll ba benn bis xale bi paa bi jox ko ravitaillement bi ba pare xale bi dem paa bi ne ko am nga loo fàtte de mu ne lan laa fàtte mu ne ko sa chocolat mu ni tiit ah mu ne ah du da nga daan jël chocolat bis bu nekk tey tax jëloo xale bi rus ne ko da nga may boole ji ak sama pap ak sama waa kër mu ne ko déedéet du ma la boole de noonu dem ma yóbbu police mu ne déedéet mu ne léegi nag nan laay def ak li ma doon jël boobu ba léegi ba heure bii mu ne ko dama lay baal mais nag dafa am charte dafa am charte mu ne luy charte bi mu ne nga assuréel ma ne dootoo sàccati dootoo fekk yëfi jàmbur nga jël mu ne ko da- d'accord naa mu ne ko léegi man tam dama lay assuréel na saa yoo jëlee dinaa la jox da nga daan jël di sàcc mu ne ko léegi doo sàccati soo jëlee sa li ngay jël ba pare dinaa jël benn chocolat jox la boo xam ne cadeau la maa la ko may xale xale bi taq paa bi paa bi jullit la xale bi yahud la famille xale bi ay yahud la ñu ngi ci kaw mais xale bi dafa taq paa bi ndax mbaax googu paa bi di ko defal ko ak sutura boobu paa bi suturaal ko xale beeg paa bi xale beeg paa bi xale beeg paa bi ba xale bi màgg xale bi màggee xam ngeen Europe xale yu góor yëpp am problème parce que Europe ki amul yar du papa mooy yay yar du yaay du école du ñu bàyyi nit ñi rek seen liberté ku nekk loo neex def xale bi chaque jour day am problème su amee problème rek day daw ñëw ci góor gi ne ko am naa problème de góor gi ne ko toogal mu toog góor gi ne ko luy sa problème su waxee ba pare góor gi dugg ci biir magasin bi ubbi benn waxande génne benn téere ñoo ne ko nga ne luy sa problème mu wax góor gi ubbi téere bi ne ko problème bi de lii moo koy réglé nangam ak nangam ak nangam ak nangam ak nangam ak nangam soo demee nga def nangam ak nangam ak nangam ak nangam xale bi dem def problème bi réglé mu ñëw ci góor gi ne ko waaw man de jommi na sa téere bi moom xanaa téere magi la mu ne déedéet mu demaat amaat problème ñëw ne am naa problème paa bi ubbeeti téere bi ne ko nangam ak nangam ak nangam ak nangam mu def affaire bi réglé saa yu indee problème paa bi génne téere bi affaire bi réglé saa yu indee problème paa bi génne téere bi affaire bi réglé wu paa bi feebar jógu ko hôpital paa bi xam ne day dee parce que màgget la mu woo ay doomam ne leen su ma faatoo jag ñu ne jag mu ne waaw ne kooku xale boobu di ñëw ci man sama xarit bi ñu ne waaw mu ne su ma deewee bàyyi leen ba ñu suul ma bu ñëwee ci kër gi di jaale si waxande ba am na lu ma fa def ngeen jox ko ko maag ko may kado paa bi faatu ñu robbi ko ñëwaat nit ñi ñëw di jaale jaag ñëw jaag bi mu ñëwee njaboot gi ne ko walla yow day sunu papa am na ndénkaane bu mu fi def nee na yaa ko moom mu ne man mu ne waaw mu ne anamu jaag di xool xale bi dem ubbi waxande bi génne téere bi est-ce que daal di koy jox ne ko am jàg jël téere bi ambale ko ba mu rafet teg téere bi ci dënn bi dem ba këram denc ko génnaat ci dëkk bi am problème bi ma amee problème mu ne oh sama góor ga moom laa doon rek problème ma wax ko ko mu ubbil ma téere bi problème bi réglé tey téere baa ngeeg man mais xaar ma wër ku ma koy seetal ku may wax problème bi muy wër di wër ku mu gis rek ne la yow araab nga nga ni déedéet muy wër ba egg ci benn waay boo xamante ne origine am tunisien la waa ji arabe la mu ne ko yow mun nga lire arabe waa ji mu ne waaw mu ne man dama amoon problème problème saa yu ma amee rek am na benn góor gu ma daan liiral ci livre bii rek problème yi rek la mu ne leen góor googu dee na livre baa ngi nii mu ne ko sa problème lan la jag daa di wax waa ji ubbi téere bi liiral ko ay problème bi rek la jag ne mais bu leen ma dofloo téere bi moom mooy téere lan fu mu jógee naar bi ne ko téere bi mooy téere bi jóge sunu borom moo tudd alquran jag ne kon téere bi moo ñëw pour régler adduna bi parce que man saa yu ma amee problème téere bi régler ko pour ma nekk jullit lu may def mu ne ko lu yomb la amoo doo fay dara fii nga toog tuddal baatu seede yi jag ne ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah mbokk yi xam ngeen jag bi mu tuubee ba pare lu mu def fii ma toog nii gëj naa déglu waxtaan wi waaye jag li mu tuubloo ci ay nit ëpp na million xale boobu après bi mu tuubee mu ne ndekke jullit yi dañuy fo yor téere bu mun a régler adduna te xamuñu ko mooy ñun ñu ngi nii ñun waa Sénégal alxuraan xamuñ ci dara da ngay gis sax ñuy jàng alxuraan nga gis benn paane fat fat yegg si ñu ne ko benn jukki jàpp mu ne maa ngi ci kurus gi alxuraan alxuraan ku ko mënul jàng mënoo julli ku mënul jàng alxuraan mënoo julli ku mënul jàng alxuraan mënoo zikr mënoo zikr ku mënul jàng alxuraan alxuraan lan moo fa nekk mooy li ñuy zikr astaghfirullah bi da nga koy fekk ci alxuraan laa ilaha illallah fa nga koy fekk subhanallah fa nga koy fekk ah allahu akbar fa nga koy fekk kon su fekkee yow da nga ne yaa ngi def yooyu munoo jàng alxuraan kon yooyu wérut loolu tax nga dégg waa ji boo waree wax astaghfirullah ne saafurulaay saafurulaay luy saafurulaay su waree wax laa ilaha illallah mu ne laa ilaha illallah su waree wax allahu akbar mu ne jaakubar jaakubar iyaaka nahbud benn waaye mu ne gaari naan yàq naabudu yàq nastain mu ne ku yàq naabudu yàq nastain looy am ci julli gi boo ne bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin rahmaani rahim maaliki yawmi din yàq naabudu yàq nastain looy am ci julli gi dara comme yàq nga naabudu yàq nastain kon mbokk yi nan leen delloo si waat sunu xel leen delloo si waat xel yi xam ne yàlla sunu borom subhanahu wa taala waxantuwul téere bi yàlla wàccewu ko ci neen yàlla wàcce ko jox ko jibril jibril indil ko muhammad ah sallallahu alayhi wa sallam yàlla wàcce téere bi ci weeru koor ci guddi guñ naan laylatul qadr inna anzalnaahu fi laylatin mubaraka yàlla nee na maa ko wàcce ci guddi gu am barke inna anzalnaahu fi laylatil qadr alquran wàcc ci weeru koor muy ngën gi weer mu wàcc ci ngën gi guddi muy laylatul qadr mu wàcc ci ngën gi dëkk muy màkk mu wàcc ci ngën gi yonent muy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lu des yàlla defal ñu ngën gi ngën gi ngën gi ñun xamuñ ci dara ngën gi téere ñoo ko yor ñoo yor ngën gi dëkk ñoo yor ngën gi bis ñoo yor ngën gi guddi ñoo yor ngën gi weer ñoo yor ngën gi yonent lu fi des
jaamu yàlla ummatun rabbuha nuur nabiyuha nuur kitaabuhu kitaabuha nuur kayfa taisu fi zalam xeet woo xam ne seen borom leer la allahu nuuru samawati wal ard yonent ba leer la aaya ba lan la ah aaya bi yàlla di wax yonent bi leer la sama kaamil de dama ko fàtte de di- fii am nañ fi tey concours ñetti ka ñaari kaamil dinaa ci teg benn muy ñett muy bii may wax nii ban aaya la yàlla di wax ne yonent bi leer na bañ naa de ah yàlla leer na ba moom rëcc na moom ba pare yonent bi leer la déedéet nuur laa wax baatu nuur allahu nuur pourtant ci saar yu ndaw yi sax mi ngi ji boo tàmbalee mu- anta an ay na anta boo tàmbalee mu jaada la wàcc gis nga fii yàlla di wax ne alxuraan leer la alxuraan leer la xoolal ñetti leer yàlla leer yonent leer alxuraan leer mu ne xeet bi di dund ci lëndëm jaadu na yàlla leer yonent ba leer téere ba leer xeet bi nga xam ne ñetti yooyu yëpp ñoo ko waafe xeet bi xeet ba nekk ci lëndëm allahu akbar li waroon nekk kay mooy rabbuha nuur kitaabuha nuur nabiyuha nuur ummatuha nuur waaye ummatuha taisu fi zalaam xeet way dund ca lëndëm yal nañu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko mbokk yi borom bi nee na ñii yuriduna namm nañ an yaxruju yu génn mina naari ci safara yàlla nee na wa maa hum déet ñoom bi xaarijina mina ñuy fay génn bu yàlla waxoon lii rek muy mbugal doy na waaye mu ne walahum am nañ azabum muqiim mbugal muy sax walahum ñeel na leen ñoom ñii nga xam ne ñoom la yàlla natt ñu weddi ko tey ba dugg safara azabun mbugal muqiimun muy sax dakk mbugal mi kenn du ci wàññi dërëm daa im kenn du ko wàññi dañ fay sax dàkk mbokk yi léeg-léeg bu ñu jàngee alxuraan ba yegg fi ñuy jeexale aaya yi ma wax ne suñu imam al imam Saïd Hawa rahimahullah nee na su ngeen jàngee alxuraan ba aaya yi di jeex bàyyi leen xel aaya yi fu muy jeexee suñu aaya tey bi fan la jeexee yàlla mun nañuy dugg safara danañ leen mbugal mbugal moo xamante ne du jeex mukk kon loolu nit war na ci bàyyi xel dugal mu dul jeex day sax dàkk te yàlla li mu wax mooy dëgg ah tey kenn bu ñu ko jëloon teg ko ci gaz rek alime ga alimenté gaz bi muy tàkk ñu ne ko toogal fii ba ba ba heure naa fi la jot dootuñu fa fekk nit ah lu ñu fay fekk doomu taal day fay waaw léegi nag nga ñu bëgg yàlla subhanahu wa taala bëgg a jël doomu aadama ne ko mentañ ci safara ne ko nekk fa. te wax naa leen safara bii ñaata xaaju ña bële la bii mooy ngelawu bële ni ngay tàngee teg sa piliyaan sa buntu kër sol kilot sol siletement ngelaw li naan la uf uf bii mooy ngelawu bële kon bële nu mu mel original bi yal na nu yàlla musal yal na yal na yàlla musal ci safara moo tax yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na ku julli ba pare soo waxee julli suba nga ne allahuma ajirni min annaar allahuma ajirni min annaar allahuma ajirni min annaar allahuma ajirni min annaar allahuma ajirni min annaar allahuma ajirni min annaar allahuma ajirni min annaar muy ñaat sept fois safara dina ne yàlla yal nag ma musal ci waa ji allahuma ajirni min annaar mooy lan yow yàlla yal nag ma musal ci safara boo ko waxee juróom ñaari yoon safara ne yàlla yal nag ma musal ci waa ji suba ak timis soo jullee suba ba pare ak timis na nga ko def allahumma inni as'aluka aljanna allahumma inni as'aluka aljanna allahumma inni as'aluka aljanna ba mu mat juróom-ñaar yàlla maa ngi lay ñaan aljanna aljanna ne yàlla may ma waaji ay waay waay yàlla dugalal waaji ci man waayi kon sax safaraa ngi noonu jara muslu yonent bi saa sallam nee na bu ngeen sëlmale ci julli muslu leen yàlla ci yii allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr yàlla yàlla ma musal ci mbugalum bàmmeel ak lan yàlla ma musal ci mbugalum jahannama yàlla ma musal ci fitnaay dund ak dee yàlla ma musal ci musibaay masihi dajjal yonent bi nee na yi ku ci muslu yàlla dina la ci musal te yëpp ginnaaw julli yi la kon duñu yàlla dimbali wan ñu dëgg ñu topp kon loolu mooy dars tey asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu incha allah waaw baax na man